Don't tong jàpp tuuma jàpp teer téyal sa faaj baram garaw toog sit ci man lim nga yéene ku dee ñàpp du topp bay sit ci man yéene ma fande mooy réere sama des reet rek mooy undu arabas nga doy sit ci man wan ko yàlla ko tàccu ya moom rek ngeen may ko loxo man accu leen ko ngay axo bokkuñu catégorie boole naan ci góor gi sama riñ day catégorie sama songe doo ci génn ayrol ayo loolu nag amul solo te parce que ñëpp rey xar nga rey bay te mu solo bala ngay jaay te kabiro bu solo yéen fii bu doon xare bere tur moo lay yé duma si selo yaa ma kolay alumi càkk nga laaj ma di ma jox kilo kilo doo am bu dee rey ma moo lay càkk kilo doo mu see ngande bu dee classe kilo di jàng mooy borom maa la yor filo ham xam bu jàng bu la ko rof Bunu anne dinle kız, zaman tayfi dol. AKA NSA DJ nee na ca xaan rap nigga boy, booy the job di jox my maafe my tech boy, I'm xam nga man ma ne ma fi rap ni nga booy nga ay pro, man damay rap ne nga booy dam la jox ci sa of def naa level bi yëkkati ba ñëpp ne la toog maa ngi dem ni nga DJ nga jël benn top, damay rap daal di jël bét bi assumé ko man damay rap daal di ñëw ni nga daal di assumé ko jël naa ni nga ma rap ga seen maa ko jiite rap bi ni nga daf may jël maa ko diire eh man damay rap ci bétu Khalifa seen rapport yi yëpp lay faat mel ni habitat ee jëlit mi booy di leen teg ci taas man naa ngi rap néeg booy nga may gis si gaal sa rapport lay def jéeg ngari koor ma jël saytu bi ni gër jëlal na ma jàpp seen koor jaay sama ngor suul ba jënd bukki ci fukki guddi man damay rap seenoon lay doon ok ok aha ci fii step la bismillah ay eh, yow Mouhamed bi jël na kàddu gën fi doon xale ci âge mais dañ di aatu xam nañ ni da ngeen bi dël bi kon jarul ngeen di fulu te bay jéemu féegi ci fës nekk dañuy faaxu aussi niveau gàtt bëgg ma dégg da ngay joobi aj ko fu trofe nekk man Mouhamed damay fexe dem jëli ko du leen may dara abalu ma leen suñu man ni dàkkal eh, lu sox di yox ci gem bi man ni maa ko dakkal rab du jaay ci Ndugu na magugu moto podabu yomi force dugu seen na sa faatu nangu tudd faatu bu jot la manu soppi seeni kàddu jóg leen bàyyi xànju kum ci jàpp la ñu wax ma néega ci bitu kalifat MC yi lay jàpp daal di man maa ngi koy def saa su ne néega xoolal samay aat booy dama koy def sa prothèse bi pare que dafa rose mu xam ni ñoo teg lu naaj néega roc ci duñ dëgg yoos booy maa ngi koy def ma néega néega jëlal topp mu xam ñoo teg lu naaj man maa dugg si da ngeen di off ama tum si benn jàpp di loo jox bit bi dina wàcc mu xam bi ñoo teglu nag man ni que tey dinaa fi ñor seen gàcce nii la la ko jox saa su ne noonu lii jox li may joxe qualité la ñoom ñii ñu jox la jox amatum si benn jox dina wàcc ma dugg ci yéen.